santé ànd ci ak Awa Diop Ndiaye awa Fatou waaw comme niñ ko waxee à l'entame euh, sànq rek euh, ci introduction bi ñu fas yéene waxtaanee administration de santé wala administration hospitalière ñu ciy fegoo ak docteur euh, Amadou Ba ñu dalal ko tey suñu plateau am mbégte bànneex feggoo ko moom ngir mu indil ñu ay leeral ci fànn boobu comme ni ma koy waxee tout le temps on parle tout le temps de pathologie feebar ak yi ni mel mais feebar itam su amee dafa am bërëb yoo xamante moom moo ko war a accueillir koo faj te bërëb yooyu su doxalin bi jéngee rek dafa am répercuté wu ci maladie loolu tax ñu focaliser wu fi mu nekk nii ci point yi nga xamante ne moom moo dugg ci wàllu administration de santé docteur Amadou Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay faye waaw ñu ñëw euh, ci li nga xamante ne rek. de santé wala administration hospitalière ñu bëggoon nga ñëw xamale ñu ak loolu maanaam euh, définition wu ñaari euh, ponk yooyu. waaw merci beaucoup c'est-à-dire que là aussi comme ni nga ko waxee. Euh, dinañ def un la différence entre l'administration santé euh, de santé ak l'administration hospitalière mais li jiitu il faut que d'abord mu xam lan mooy santé lan mooy administration euh, dinañ jéem a également seet lan mooy hôpital mais dinañ taxaw également ci ñaari événement wala ci ñaari date 1978 ak 1998 1978 am na lu xewoon 1998 donc vingt ans après 78 am na leneen lu xew donc euh, ci ñaari date yooyu dinañ ci taxaw. Euh, li jiitu ci santé mooy euh, ñu bari dañuy jaawale santé ak feebar la santé c'est pas la maladie feebar maanaam du ñàkk rek la santé mm-hmm. mais OMS day définir la santé comme. n'étant pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité maanaam du parce que tëddoo hôpital rek wala amoo benn cër boo xamante ni manqué na ci yow rek ñu ne yow mi feebaroo mais danoo ne pour mu am santé maanaam wér-gu-yaram totalement il faut mu am benn équilibre équilibre bi mooy un équilibre physique un équilibre mental et un équilibre psychique socialement tu dois être bien physiquement tu dois être bien mais psychiquement également tu dois bien donc day dëggal ne du nit ki feebar na rek wala am na benn cëram bu manqué rek ne nit kii kat il est malade wala féetan euh, amul sa santé donc la santé c'est cet équilibre là beneen bi mooy lan mooy structure de santé structure de santé mooy euh, bërëb bi nga xamante ne bi képp koo xamante ni kii feebar nga da ngay dem faju ci mais su fekkente ne jël nañ définition de santé comme ni ma la ko waxee woon donc du caagi ne rek nit ñi dañoo war a dem ci structure de santé yi mooy këru faj bi donc santé dafa nekk mbir moo xamante ni bi dafa yaatu di dinañ ci ñëwaat mu am nag lu ñuy wax un système national de santé bu ëmb lépp luy faj

au vingtième siècle c'est-à-dire la santé pour tous en l'an 2000 kooku ñëpp a ngi koy fàttaliku c'était en 1977 en 1978 expertu OMS yi encore toogaat càmbar mbir mi ne waaw nun de fii la ñu jëm mais naka lañ fay demee mais kon il faut que def loolu ñuy tuddee les soins de santé primaires maanaam càmbar jafe-jafe yi amoon avant 77 yëpp jéem ko solutionné mais bi ñu koy solutionné ñu ne dañuy wut la nga xamante ni mooy les soins de santé primaire muy les huit composantes des soins de santé primaire dinañ si ñëwaat. 1998 soo leen di fàttaliku dafa am aussi loo xamante ne lii euh, dañ ko tuddee la réforme hospitalière parce que nee naa leen le système hospitalier dafa ëmb ci biir système de santé donc système de santé moo gën a yaatu système hospitalier nekk ci biir système national de santé. réforme boobu aussi mbir la boo xamante ni dafa ñëwoon ay jàngoro yu bari yoo xamante ne yi dafa nekkoon ci biir secteur de la santé wala ci biir secteur spécifique hôpitaux yi Euh, point yooyu euh, ci li nga xamante ne moom jëm ci wàllu secteur de la santé bien vrai que am na ay réformes yoo xamante ne amoon na fi mais jusqu'à présent li ñuy laajaat mooy ñu indiwaat itam yeneen réforme ndax gis nañu ne am na fenn foo xamante ne ci politique sanitaire bi fii ci réew mi dafa am foo xamante ne mu ngi soofee pas politique hospitalière bi mais politique de santé bi en tant que tel. Euh, gis nga Aïssatou su fekkente ne du moins Awa Ndiaye su ma lay wax te muy dëkk. Sénégal système de santé bu cohérent la yor bu mucc ayib su fekkente rek système la ñuy wax système la bu mucc ayib mën naa la néew également secteur de la santé secteur bu am koppar la. bien financement amul benn problème. Mm-hmm. beneen bi mooy système de santé en plus de la cohérence ak koppar yi mu am am na des ressources humaines de qualité. fàttaliku leen en Afrique noo njëkk am université boo xam ne di am na faculté de médecine de pharmacie et de d'odontologie cadre Afrique yëpp nu leen di fajee fii beneen bi école des sages-femmes d'État c'est une école également boo xam ne bi depuis 1952 mu ngi fi ak école des infirmiers d'État bi nu fusionné à partir de 1992 tuddee ko école nationale de développement sanitaire et social mhm. donc xam nga waruñu am jafe-jafe foofu donc secteur bi su amee jafe-jafe rek am na feneen fu ñu ko war a uh-huh. mais tey euh, secteur bi am naa jafe-jafe yaa ngi doon wax ne fii lañu ñu formé euh, yu bëri ci Afrique mais tey jii li ñu nemmeeku moo di ne am na fuite des cerveaux nam dasa fet fait population sénégalaise bi bénéficier wuñ ci ci seen expertise am na feneen foo xamante ne itam ma ngay sooxe ñi ñu doon formé fii suñ leen formé ba pare dañuy ñibbiwaat fi nga xamante ne moom moo di si seen réew école infirmier d'état yeeg yi ni mel suñu leen formé ba pare itam dispatching bi au niveau des euh, hôpitaux ça pose problème da ngay dem si zone yoo xamante ne amuñu par exemple des sages-femmes ou des médecins ou des infirmiers donc muy doon politique sanitaire boo xamante ne peut-être autant rien à dire mais tey jii ñu ngi xam nga dama la ne nous avons un système très depuis 1978 ba léegi avec l'avènement de la santé pour tous à l'an 2000 de sorte fépp waaye nekk ci biir Sénégal di nga am au moins benn prestation de soins bu méngoo ak sa tawat danoo jël lu ñuy tuddee une pyramide sanitaire pyramide sanitaire bi c'est de la case de santé à l'hôpital bi ñu tuddee CHU CHU dinañ ci ñëwaat parce que dina dugg ci biir hôpital donc soo seetee case de santé au niveau des villages nu am des postes de santé au niveau des communautés rurales ou bien au niveau des grands des des, des gros villages nu am ce qu'on appelle les centres de santé centres de santé yëpp ëmb ci lépp li ñuy tuddee le district sanitaire district sanitaire yëpp aussi ëmb ci li ñuy tuddee la région médicale région médicale bi nekk benn structure boo xam ne bi day coordonner l'ensemble des activités de santé je dis bien de santé au niveau de la région donc y compris même l'hôpital soo xoolee mooy hôpitaux de niveau un yi dinañ ci ñëwaat ak au niveau deux yëpp dañuy intégrer la région médicale donc le médecin de région devient non seulement un administrateur mais également un coordonnateur mais également lu ñëpp réeree mbir nekk un esprit. mais tey euh, docteur euh, le problème mooy hiérarchisation bi ni nga ko waxee c'est bien fait mais tey hiérarchisation boobu dafa am loo xamante ne itam moom mooy frein am ah, mooy fonctionnement bi. waaw xam nga fonctionnement bi aussi xam nga ne woon naa la sax nous avons un système cohérent. cohérence boobu day am nga nee naa la nous avons des ressources humaines de qualité mais en quantité également suffisante. suffisante je dis bien en quantité suffisante je ne mâche pas mes mots. ma ne la aussi am nan koppar parce que nous avons non seulement le budget de l'État mais nous avons également nos partenaires. financiers mais dinañ ñëw aussi finance bi. sax également mais sunu problème c'est au niveau de la répartition du personnel. normalement, on devait faire une répartition équitable et rationnelle du personnel. Gis nga il y un temps même pour fidéliser ce personnel la au niveau des zones dites difficiles personnel yi dañ leen doon jox ay indemnités des indemnités spéciales pour leur permettre que ñu fixer wu foofu mais peut-être solution bi feneen la. y a d'autres formes de motivation yoo xamante ni peut-être du note rek d'ordre financier peut-être on mais docteur su ma la déggee nga ne euh, limu ñi nga xamante ne moo di personnel de santé bi lim bu doy la am euh, bu fekkee ne euh, du problème mu koppar itam. mais tey on a vu que maa lay wax wàllu fonctionnement bi hiérarchisation bi d'accord mais au niveau du fonctionnement. Euh, gis nañu ne li nga xamante ne moom moo di personnel bi yaa ngi wax mal répartition mais mal répartition certes am na ci mais itam euh, jël nit ñooñu am na beneen problème boo xamante ne jur na ko ndax gis nañu des sages-femmes d'État qui sortent euh, gis nañu des infirmiers ki sortent mais duñu leen recruter tey ñu ci bëri tey duñu nangu dem au fin fond du Sénégal pour liggéeyee fa donc mu nekk problème boo xamante ne c'est jusqu'à présent ah ici même bu fekkee ne def nañu teg nañu benn politique euh, boo xamante ne ah, Awa Diop tu as posé ton droit sur le problème xam nga su ma la ne que le l'État du Sénégal ou bien le Sénégal dispose de ressources humaines de qualité en quant suffisante c'est en termes de production xam nga bu njëkk ba école sage-femme de médecine wala école des infirmiers rek noo doon produire mm-hmm. mais léegi avec la décentralisation l'ouverture avec euh, même euh, justement la la démocratisation du système on a pas mal d'écoles qui forment donc la production elle est suffisante mm-hmm. mais l'utilisation warul rek nekk état Euh, newoon naa la dinañ arrêté wu ci 1978 dinañ arrêté wu également ci 1998 parce que ça c'est deux dates majeures mm-hmm. des événements majeurs mais am na benn événement boo xam ne bii war nañ ci mën a taxaw encore parce que événement boobu moom moo inspiré l'événement de 1998 xam nga mooy ban 1996 1996 mm-hmm. l'état du Sénégal dafa engagé wu dans un processus de décentralisation créer des collectivités locales très fortes. Oh, c'est la loi 96-06 code des collectivités locales de 1986 de 96 même su fekkente ni modifié nañu ko en 2014. Mhm. avec le code général des collectivités locales. mais en mille en 1996 il y a une autre loi qui avait été votée en 1996 c'est la loi 96 jël neuf domaines de compétences transférés ko aux collectivités locales. Uh-huh. neuf domaines transférés il y a la su fekkee ne transféré nañ des collectivités locales cela veut dire que les collectivités locales dañoo waroon ñëw jàppale état bi ci recrutement. Uh-huh. que su fekkente ne nee nañ la yow maire wala bu njëkk ba président communauté rurale yow yaay le président du comité de gestion de, de cette structure la poste de santé bi wala mhm. euh, centre de santé bi war nga ci def sa loxo bien sûr c'est ce qui mais loolu tey dafa am problème euh, docteur ma rek moo terminé je uh-huh. maa lay bëgg woon ne ci point boobu ci point boobu ba léegi ci uh-huh. ci man foofu xam nga dama la wax affaire collectivité locale parce que la collectivité locale c'est la structure décentralisée territoriale uh-huh. nu nous la un secteur aussi vital que le secteur de la santé. Mais en 1998, nous chambards les hôpitaux, les hôpitaux ont des difficultés. Nous avons hôpitaux, leen un statut pour établissement public. Mais établissement public, moi, là. Établissement public, moi, une structure dans sa gestion mais avec une mission de service public mais un établissement public warul mën a dépendre en termes de ressources humaines de l'État bien mais tey ban hôpital au Sénégal bu am statut établissement public bu dépendre foncièrement sur le recrutement de l'État et l'affectation de du personnel à son niveau alors que il devait disposer comme ni mu amee autonomie de financière am autonomie de gestion disposer de ses propres moyens mais il devait pouvoir disposer également de ses propres moyens en ressources humaines donc hôpitaux yëpp suñu recruter woon collectivités locales yi recruter xëy na dinañ résorber un peu le taux du chômage mais en même temps dinañ permettre état bi souffler jël personnel bi mu yore woon maanaam bi mu recruter affecté ko au niveau des structures déconcentrées lu mel ni les postes de santé les centres de santé et les régions médicales. wala les euh, yaa ngi wax euh, li nga xamante ne mairie yi tey déjà ñoom li ñu yore rek attanuñ ko ñu ñëw indiwaatal leen euh, leneen loo xamante ne ci seen ressort lay nekk mooy personnel de santé boobu ñoom sax ñoom ñooy obligé di leen fay ñoo leen di recruter ñoo leen di fay. de la décentralisation également on a vu que y a beaucoup d'imperfections ci côté boobu ndax tey jii. gis nañu saa su nekk poste de santé yi centre de santé yi ñuy génn di grève ces agents là recrutés par la mairie mairie bi moo leen war a fay mais tey amuñu seen politique financière boobu pour def ko keroog ñu ngi doon waxtaan ne financement de la santé mais gis nañu ne également ñu ngi wax ne secteur bu am xaalis la d'accord secteur bu am xaalis la mais ci ban domaine la amee xaalis Euh, tey jii par pathologie la ngay gis mu benn structure bu taxaw ñu ne mooy xeex tel jàngoro beneen structure taxaw ne mooy xeex tel jàngoro foofu la xaalis bi di ëppee parce que avec l'appui de l'État des partenaires également yooyu moom moo leen di may xaalis carrément là je regrette su ne les services spécialisés euh, soo bëggee ma citer ay ay services su fekkente ne bu me permettez la publicité les services spécialisés de l'État ñi nga xamee ñoom ñooy toppatoo jàngoro paludisme xam naa foofu nga bëgg wax wala tuberculose wala sida mais ñooñu c'est des services spécialisés mais ku la ne xaalisu santé yëpp foofu lañ koy virer ndax na la le secteur de la santé ministère de la santé dafa am budget c'est un budget consacré national mis à la disposition du ministère de la santé ministère de la santé mooy def répartition mais répartition également équitable et juste dinaa ñëw. est-ce équitable. Euh, et juste. ça moom et c'est sans embâche et puis ñi may déglu xam na ne je ne mâche pas mes mots euh, je très critique ñi may déglu mes collègues wala ñeneen ñi ma xam xam na ne euh, moi je suis très critique et puis je ne pas mes surtout lu jëm ci affaire administration hospitalière je te dis au niveau de la répartition des lignes et de crédit la répartition se fait de manière juste et équitable xam nga nag équité de égalité c'est-à-dire suñu nee équité c'est-à-dire c'est en fonction des besoins des structures mais nag jàpp leen amul benn structure boo xamante ne bi dina am la nga xamante ni moom la bëgg totalement parce que même la budget de l'État soo xoolee euh, mënul couvrir tous les besoins du Sénégal